asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di leen ko baal di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di ko sàkku ci yéen mbokk yi tey dañu ñëwaat ak yéen ci gént al minbar minbar mooy fi imam di taxaw di xutba wala di bayan maana di waaraate moo tax ñaare dana tekki mm, dana tekki moom jëmmi imam ci boppam ci gént dana tekki daraja ndax daraja la dana tekki ak yëkkatigu dana tekki it lu mel ni baar comme baaru tribunal kuñ taxawal tribunal dina fa ngay taxaw foofu daare dana koy tekki ku gént taxaw ci kaw minbar ak kawe la ak yëkkatiku la baax na ci kuy xëccoo pal bam pale àddina yi ñaare ku koy xëccoo bu génte taxaw ci kaw bar dana tekk ak faloom baax na ci kuy sàkku ak ubbiko moo xam lu mu doon jëfandikoo la moo xam lu muy sikar la wala lu mel noonu moom ñaare bu gente taxaw ci kaw minbar di xutba loolu dana tekk ak ubbi ko koo xam ne nit ñi dañ koy jubloo baax na ci kuy lis lu mel ne soxna wala lis sa xaari jëkkër boo taxaw ci kaw minbar dana tekki ak yokkute ak say borom barke baax na ci kuy yi tour yàlla ak tour yàlla bu mën a doon ñaare bu ko tàmbalee wala léeg-léeg tur yàlla mën na lay génn mën na lay wan ngay gént di taxaw ci kaw minbar borom mi wër la loolu dana tekki martaba dana tekki martaba ci moom baax na ci kuy nit moo xam xalwa boo koy defal wala riyaada wala yu mel noonu moo xam lu muy yóotu la bëgg cee jot wala leneen ñaare bu fekkee danga gént yow si jëmmi bopp nga taxaw ci kaw minbar wala nga gis ak nit ku taxaw ci kaw minbar ñaare dana tekki màndargam ijaaba baax na ci kuy layoo ndax minbar dana tekki foofu ñuy taxaw baar maanaam foofu ñuy taxaw di layoo ñaare bu fekkee daga gént taxaw ci minbar nit ñi dina déglu bu dee ko am procès tribunal dana tek am ak ndam ci yow ak procès boo xam ne danga ko nar a gañe baax na ci ku nekk barsaq maanaam ko xam ne dafa faatu yow nga géntal ko mu taxaw ci kaw minbar di wax nit ñi ko déglu dana tekki boroomam lay wu jub bu dee nag koo xam ne day dafa jubadi ah, nga géntal ko mu taxaw ci kaw minbar ko jubadi mooy kuy sàcc wala kuy agressé wala kuy trian wala xeet yu deme noonu wala ko saay-saay yooyu yëpp ak jubadi la ba ñëpp xam ko ñaare bu fekkee da nga gént mu taxaw ci kaw min minbar dana tekki fu ñu jàpp di ko taxawal tribunal minbar bu bu ñaare dana tekki imam ju fa um, imam ju bëgg a faatu wala coowal jàkka mbar bu fàq baaxul ci borom palaas bu géntee taxaw ci minbar mu fàq dana teg ak wàlliku ci moom baaxulit ci commerçant dana teg ay jafe-jafe yu muy am wala ay bor baaxul ci kuy tukki ñaare moom it su demee dana ci am gàllankoor baaxul ci kuy saxaar sëy wala nga am yittey sëy moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la nga gént min war bu fàq moom it ñaare gàllankoor la kuy taxaw ku ta ku gént taxaw ci kaw minbar ngay wax te li ngay wax kenn déggu ko wala yow dong nga wéet di wax taxaw ci kaw bar loolu baaxul ñaare su fekkee kilifa ko gént wala nga géntal ko kilifa ñaare ku wan ginnaaw lay doon baaxul it ci kuy ñaanal nit dana tekk ju naqare faju wala aajo ju diis wala aajo ju des yëpp daal mbokk yi Ah, ku gént ba tey min bar sa kër ñaare dana tekki kilifa gu fay ñëw dana tekki ak yëkkatiku ca kër ga ak kawe bu fekkoon ne danga doon lis saxaar lu mel ni palaas wala kër nga gént gis fa min bar loolu lu baax la dëkkuwaay la gent di defar min bar ñaare kuy liggéey tur yàlla dana koy faral di ko gént xeet yu deme noonu jigéen ju am nak ñaara bu gente taxaw ci kaw minbar dana tekk kilifa gumuy am mana ah, doom ju xam ne kilifa lay doon nituk diine ku gent am ku gent nga taxaw ci minbar am ñu koy fàq ko daaneel loolu kilifa gu ñuy fexeel la moo xam pexey zahir la moo xam pexey baatin kon mbokk yi yëpp daal ay takk-takk la yu am solo ci minbar te ñaare bari na lu muy daje lool te dana la dimbali ci yeneen yi nga xam ne waxuñu ko nga man ci amuk dégg kon ngeen de amoon abonné ci chaîne bi ak vidéo yi ngeen koy tasaare ndax bokk na ci li ko yëkkati wassalaamu aleykum wa wa barakatuh